mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nag dellu si waat ak yéen ba tey rek euh, ci seen émission wareef ci télévision Futur Média muy occasion boo xam ne euh, dinañ dalal nag seen doom suñu doom Zey. waaw Pape Ndiaye maa ngi lay fay bu yooyu nuyu naa la. non léegi léegi moom mu sukk bi moom. 100 pour cent réflexe la sax réflexe la. <laughs> nuyu naa tamit téléspectateurs yi jàkkaarlook seen télé di seetaan wareef nuyu naa leen bu baax a baax ku ci nekk sa tur ak sa sant. fay nañ la fay nañ la bu mm-hmm. baax a baax. Zey. Mm-hmm. conséquence. waaw te nag dañ lay bàyyi nga wax ba géex. waaw parce que man thème bi bi mu commencé ba léegi. Mm. maa ngi doon xaar Tadegen ñu attaqué conséquence. Mm-hmm. conséquence surtout. ci xale bi mm-hmm. parce que defe naa ne moom mooy innocent bi nga xamante ne dañ ko entraîné dugal ko ci loo xamante ne du coobareem mm-hmm. te parents yi war nañu sooraale bu baax a baax a baax seeni doom mm-hmm. gis nga dafa am acte yoo xamante ne yaa ngi koy posé léegi foog ne léegi lay am mais dina topp xale bi giiru dundam daa diggéen ñaata yoon nga fi toog gis xale bu la ne sam pap su deewoon sax duma jooy gis naa ko man nga toog gis xale naan sama yaay de daf ma jur ma jox ko cër ba mu moom waaye de li may def nii sax neexuma dama koy def rek parce que xëy na daf ma war ñaata yoon nga koy dégg ñaata yoon ngay gis xale màgg comme am na sama tata bu doon woote sànq di wax ñu naan euh, yaay ji dafa jaxase doom yi ak papa ji mm. fekk ne xale daf koy li mu dencal papam depuis bi mu nekkee tout tànk arbitré voilà dafa yàgg arbitré hmm. te conséquences yooyu même dans jaar ci xale bu am deux ans sax da nga koy gis hmm. da gis papa ak yaay di xulo hmm. xale bi day toog rek di seetaan mais su xuloo bi jeexee mën nga gis pendant un certain temps yenn saa mën na def semaine sax papa ji fu mu ko jóg jege rek mu jooy dem yoonam du sax bëgg papam fab ko kon papa war a xam ne wala ak ci yaay ak kum ci mën a doon war a xam ne lii kat du li gën ci ci ci sama doom lii kat maa ngi créer haine sama diggante ak sama doom sama ànd kat maa ngi koy wacc wàcc parents yi tata dëggan war nañ soo sóoraale loolu bu baax su ñu jógee ci xale bi nga xamante ne bébé la mun naa wax parce que deux ans quand même bébé la jëlal ci léegi jëlal jëlal yaa moom yëpp <laughs> allo. Zeyna. waaw soxna si. ça va bien merci. bonjour ça va mhm. ah, participer ci émission bi. ñu ngi lay déglu. Euh, nuyu taa dégg bu baax. ñu ngi lay sargal. di nuyu papa Ndiaye Lo Ndiaye. à chaque fois damay faral di wax naan suñ may takk moom dama bëgg invité papa Ndiaye Lo Ndiaye mu ñëw wax parce que ëllëg ndax li muy wax day yeete. et que dama naan saa yu dama koy wax sama yaay muy réew bi bëgg dee ma naan ko saa yu ma dégloo kaset bi rek toogaat muñ. Mm. waaw ndax bëgg moom mm-hmm. daal. waaw ba may wax ne violence conjugale yi bëri na torop. Mm-hmm. c'est du man si sama gis-gis buñ ko mënee wàññi dañuy wax dëkk bi dëkk bi dafa yàqu man dama naan néeg yi ñoo yàqu. Mhm. parce que bu ñu defaree néeg yi defar kër gi. Mhm. defar digg ëtt bi bu mhm. génnee mbedd mi normal. faudra que ñu bàyyi ci xel bu baax. xam ne ñun tamit matu ñun jigéen ñi que góor ñu muñal ñu ndax ku bàyyi sa kër papa ak sa yaay ñëw donte yaa ngi xëy di liggéey wala liggéeyoo sax parce que je suis pas encore mariée j'étais mariée man j'étais divorcée. je du moins que ku bàyyi ñëpp ñëw ci yow. kon war nga koo muñal. lu mu mënti mm. demee nga comprendre ko ndax loolu rek moo fi am. Mm-hmm. Euh, su ma participé ci mission bi ba pare je voudrais parler à Tadigen. waaw bisimilah ma fi. Euh, Tadigen man dama bëgg benn thème boo xamante ne nii daf ma touché trop. ban la. Euh, du waxagoo ko. Mm-hmm. mais dama da damay bëgg benn nit boo xamante ne mu bëgg ma trop. Mm-hmm. il travaille pas. ngeen bëggante. trop waaw. liggéeyul. liggéey euh, man may jàng pare arrêté. Mhm. parce que liggéeyatuma. mu dem ba wax bañ d' accord. Mhm. desul lu dul ñu joxe seen accord déggatuñu leen mais ku góor ki maa ngi koy dégg son papa wala papa ma ak yaayam la ngay dégg. leerul leerul li nga wax nga ne dafa kenn koy bëgganteel. waaw. Mhm. léegi ñu joxe woon seen accord. ñu wax ko ba wasam oote téléphone. oo mes parents parents yi d' accord. d' accord ne ma dema wax sa papa. ak ñoom léegi d'un seul coup. waxatuñ ci dara li ci jëm ku góor ki moom mi ngi bëgg ba tey suñu waxee dañ naan xaaral xaaral kenn comprendre lu ñuy xaaral. parents mi daal ñëwatuñu. ah non mais ku góor ki il insiste man j'ai du mal xam nga nit ak ku mu bëgg à chaque fois mu ooma du ma mën di ko raccrocher au nez métti parce que dañuy dem ba samay parents dañuy gis ne coté de manque de respect la sama vis-à-vis de moi. Mhm. donc doo xamante nooy def. mu mel ni daal parents mi daal am na lu ñu dugal. waaw je sais même daal. je suis mm-hmm. marteau et man li ma bëgg rek mooy un conseil ku ma wax exactement fan laa war a féetee papa Ndiaye Lo Ndiaye bu ma bu ma waxee dinaa ko déglu parce que dama koy déglu fréquemment dama bëgg rek mu wax ma ci un conseil je je sais que bokkul ci thème bi mais briefing rek laa bëgg moo xam. incha allah incha allah ok merci beaucoup. jërëjëf merci ma fille merci merci merci encore une fois Zey. waaw tata Degene. Mm-hmm. maa ngi newoon ci xale yi. Mm-hmm. jóge naa ci bébé bi mais xale bi nga xamante ne tout tànk la mi ngi màgg jëm. quatre ans cinq ans six ans hmm. soo leen seetloo en général dañuy nekk ay xale yoo xamante ne épanouir wuñu hmm. parce que ils sont pas épanouis parce que ci diggante xuloo xeex surtout ñaar ñi nga xamante ne ñoom nga gën a bëgg sa xol ñoom ñoo la waroon protéger dalal sa xel yow ci arbitre ñaar ñooñu nga dëkk hmm. soo da gis yenn saay xale rek muy dox si mbedd bi sax nga xam ne kii nekku fi bu moromam mi di foo moom mi ngi toog ci rukkam ñu naan moom dafa yaru fekk ne li mu denc si xolam ak la muy wanaasu moom dong moo ko xam te conséquence su renferme boobu nga xamante ni xale bi mu koy def ëllëg ak si biir tata dégg dafa graaw xale yi allo allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam euh, dëggeen si ma laa bëggoon jot waaw kilifa gi dëggeen dama lay woo ñaari mbir benn bi bismillah dama lay féliciter ndax yeer ndeysaan dama gis ñaari nit critique la. Mhm. critique la nga ànd ak yar. dëgg la. ak teggin wax leen lu tegginu. ndeysaan continuer sa mission. ndeysaan loolu ku ñu yarul mënoo ko. jëf exemple lu yar kër ci loolu lay doore. ndeysaan. waxtaan bi nga doon ci sëy nag. Mhm. dama bëgg ngeen état dag étape. sëy ñetti façon la. ñu def ko étape par étape. waaw sëy yu ndaw. dëgg la sëy yu ndaw. waaw mooy ñaari xale yu am dix huit ans vingt ans sëy. ndeysaan. ñooñu bokkul ak ku am quarante ans. dëgg la. bokkut am ko am 60 ans. dëgg la. loolu ngay seet. fan la muñ doore. dëgg la mujjee ak ban moo ci dëgg la. sëy bi màggatee ak ngay ndaw ak sëy bi ngay nekk sa ndigg njëkk. ndeysaan. loolu ñett la. dëgg la. loolu nag sa xarit sa mbokk sama wëllëre woowu ngay waxtaanal. ndeysaan. mën a tas. ndeysaan. mais man li ma jàpp mooy bi ci ëpp njëriñ. Mm-hmm. mooy bi ngay mag. Mm-hmm. nga àndal. Mm-hmm. ngay ndaw mu jël sa doole yëpp ak sa wërsëg. lépp nga def ko ci moom ba màggat. ndeysaan. su la amalul yërmande ak ndimbal. dëgg la muy ñetti étape. dafay waaw dafay ñetti nag loolu mooy étape bu mujj bi. dëgg la. xam nga étape bu njëkk moom. Mhm. da koy mu nob la. da koy bëgg mu bëgg la. Mhm. loolu loo def dana muñ. dëgg la moom itam lu ñu la def da nga ko muñ. ndeysaan. bi ci dëgg nag da ngeen di làmbante ba xam da ngeen mën a wéyam déet. Mhm. mujj bi nag mooy dernière phase. ndeysaan. te loolu la ka ci mooy jigéen ndax moo juri doom moo bëgg doom yi baax. dama ragal ne jigéen ñi dañoo fàtte ne. mbaa mhm. boog ñu dégg ko ni ñu ko déggee ñun. Mhm. mooy baaxu doom yëpp ñu ngi ci liggéeyu ndey. dëgg la. mag ñu bari boog loolu lañ d'accord. dëgg la. ñu ngi fi raamal ñëpp daal seen ndey baax. dëgg la ñu ngi fi raamal ñëpp daal. seen ndey baax rek. macha allah macha allah. te sëy saar yor. dëgg la. jukkoo ko yor. dëgg la kilifa gi. ñaare bi tam jàpp sa jëkkër toroxoo ko ci kanam ak njabootam. Mhm. loolu dina wàññi góor lool. dëgg la. loolu yëpp lu ñu war a daw la. Mhm, mhm. yow nag. Mhm. xaw ma ku la mënta jot de. waaye la ki nga àndal yal na yàlla bàyyi leen ba ngeen am téeméer ak kanam. allahumma amin amin yaa rabbal alamin. kat am ku mel ni yow. parce que man seetlu naa yéen doomu ndar yi ni ngeen di seeyee. ndeysaan noonu nga sañsee. ndeysaan. waat naa ci yàlla taaja reer. ndeysaan noonu nga koy tegee. ndeysaan jërëjëf. loolu na ku sañoon am ko. jërëjëf ku baax ki yal na yàlla jàppale. allahumma amiin amiin amiin kilifa gi. man nag bu ma sayoon di leen waa dimbali bu ma leen di mën a jot damay waxtaan ak yéen dama leen di dolli toujours sama jërëjëf kilifa gi. na leen yàlla yal na yàlla fayal ñu la. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf Zey. waaw c'est-à-dire ngeen gis nga El nee na Sey ñett la après paquet boobu laa lay jox ndax kilifa gi mu ngi wootee Thiès macha allah macha allah sa xarita c'est-à-dire yi ci ci ci xale yi nga xamante ne dañu nekk ci foyer boo xamante ne violence conjugale dafa am mhm. si la ëppee mhm. parce que ñaata yoon da ngay xëy rek gis nit màgg do rek mel ni ko neex mhm. société bi ku ne di ko critiquer ku ne da wax di ko wax safaan te la nga xamante ne moom la dund ci enfance sam mm. ba ni mu màggee mm. kenn xamu ko mm. lu ci mel ni violence conjugale mën na def ci xale déjà li gën a basique li gën a banal mooy mu defaat loolu ci biir sëyam ka muy papa ka muy yaay bu gisee papa di door yaay xalaat na ne xëy na loolu mooy normal jigéen dama ko war a dóor ko ne may góor ñëw ci këram di def noonu jabaram mm. su fekkee jigéen nga gis sa yaay di toroxal sa papa saay su ne mm. di nga xalaat ne loolu mooy normal su mm. fekkee ne loolu kese ngay gis mën nga xalaat ne loolu mooy normal loolu defe naa ne conséquence bu gën a ndaw la mm-hmm. ci violence conjugale mm-hmm. mais mën na yóbbu xale ba mu màgg déjà yow yow quand tu te sens pas bien ci sa biir kër sentiruloo bien ak ak say waajur lu ne mën na la cee dal nit mën na nekk agresseur ndax loolu nit mën nit mën na nekk violeur ndax loolu nit lu ne dëgg la lu ne. traumatisme boobu mën mm. na jur lu ne. ci xale te conséquence à long terme yi tamit waruñ ko ci banaliser waruñ ko banaliser parents yi war nañ koy sóoraale bu baax a baax bu ñu xalaat à court terme rek mm. nañu xalaat aussi à long terme lii nii may def ëllëg ak si biir lan la mën a jural sama doom jëlal ci ligne bi allo salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si naa def maa ngi fi waaw ci bàgg wax asalaamaaleykum dajeel si meer. ndeysaan soxna si. maa ngi nuyu Ndiaye di la Fatou Mbacke Ndiaye Lo. alaaji maa baax doom. <laughs> waa kay si saa dajeel. ndeysaan soxna si. musuma woote si téléphone c'est la première fois ma woote si téléphone. dëgg la dëgg la ndeysaan maa ngi sant di la gërëm sa waxtaan neex nañu. ndeysaan. nu ngeen sori nag moom bu ko bàyyi. ndeysaan. parce que nit ñi xamuñu ndax yow da ngay publicité en di nit ñi di la kii ngeen ni publicité ak yooyu yëpp. ndeysaan nit ñi sulaale wuñu loolu waaye ñun ñi wax dëgg lu ngay def rafet na. ndeysaan yekk nañu bëgg nañ ko. ndeysaan di ñaan yàlla daal moom yàlla may fan gudd. allahuma amin yaa rabbal alamin yaa def na lu ñu bëgg nga defal ak mbooloom jullit. allahuma amin si Sadio dara dara dara lépp baax jërëjëf. waaw <laughs> na yàlla fayal ñu leen macha allah macha allah. di profité waale di nuyu alaaji maman Venus Kama macha allah waa États-Unis yeeg ndeysaan ñëpp a ngi woote démb waaye lépp sant yàlla zëy